tuuti bu ñu muñee tuuti parce que réew mi dina changer moom. kañ. waaw dina bientôt rek yàgg tuuti. mais 2024. <laughs> changement la may mën a non non non gis nga fi ñu toll nii yii xew politique bi parti yi parti yëpp war a tas. ah dañoo war a tas parti yi xaaral ma wax la rek. Hmm. def nga ne réew moo xam ne matul 20 millions d' habitants ñuy wax ay centaines de partis gis nga. caaxaan yi dafa bëri. dama la wax rek <laughs> man kay yooyu sax góob ma ko defoon naa ni même bi ma soxna naan ëpp na ñaata. 200 ëpp na 300.